Euh, toog ak waa daaira Touba Mali euh, di jiital ci siyaar bi sëriñ Touba Cheikh Modou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di siyaare sëriñ bu Bousso imam ak mboolem waa daaira Muxaddamatul Xidma bi yépp euh, mu mel ni jataay bi tam amoon na daaw ci jamono bi bi ñu màggalee fii ci biir jumaay Cheikhul Xadim ji waa daaira Touba Mali nii rek lañ ko doon defee gannaaw ban wuy see ànd ak daayira muxaddamatul xidma ci liggéey bi nga xam ne moom la leen sëriñ tubaa dënk ngir ñuy saytu jumaa ji ci lépp lu aju ci entretien ak lu jëm ci biir jumaa ji ñoom boobee lañ daal di taxaw taxawal ab mbooloo moo xam dañoo ànd rek di ànd di jàpp ci liggéey bi buñ tuddee Mali nag danañ tudd sëñ Maam Balla Mbàkke mi nga xam ne moo nekk ci boppu daay boppu liggéeyu daayira Seexul Xadim ba fa nekk ñu feggoog sëñ Maam Balla damay wax ne Euh, sëñ maam Balla buñ ko bàyyee kàddu gi ndax moom mën naa ne mën nañu fee wootu ñun ñëpp ndax ku xool bi mu ñëwee ak léegi ci màggal gi mi ngi ànd ak ñun ci liggéey bi euh, di waxit ne euh, suñu teewaay itam dañ fee teewal mboolem jëmmi daayira bi yëpp suñu yaa ne ci bopp bi suñ Abdou Lahad maam asta mi ngi xam moo jiite relation extérieure ak suñu Abdou Lahad Thierno suñu Abdou Lahad Moutalib suñu Abdou Lahad Muxtaar ak sëñ fàllu Mbacke ak sëñ Ablaye Diop ak mboolem waa xidma yëpp euh, rafetlu bu baax doxinu waa daayira Touba male seen taxawaay ci liggéey bi ndaxte kenn ku ci ne xam na ne euh, koor gi tam nii lañ àndee woon ak daayira bi euh, màggal gi tamit bu ñëwee nii la ñuy ànde ak daayira bi dajale seeni jëf indi ko jébbal ko sëñ Yaafiya bu sa limaam ba sëñ Abdou Khadir Mbow moo ñëwoon ci biir wàccaay wi indi seen jëf joojee nga xam ne daan nañ ko ànd ak bi kon ñoo ngi ñaan yàlla jëf jooju yàlla ful ko ñu yàgg ko man yàgg ko ànd ak liggéey bi ci barkeb Seexul Xadim kon dañuy bàyyeek rek kàddu gi sëriñ Maam Balla Guèye duñu fàtte tamit mboolem jëwriñ yëpp sëñ Maam Mor Dia Maam Mor sëñ sëñ Bay Caam ak sëñ Maam Góor Dia ak sëñ Thierno Sène ñëpp duñ leen fàtte euh, sëñ ma fari Njaay itam duñ leen fàtte waaye ñoo ñëpp sëñ maam Balla bu ci ñëwee rek incha allah dana dana dana dana dana mottali li des ci ci kàddu yi. Ah, jërëjëf sëñ Assane ah, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax te di la ziyaare bu baax te di la baalu àq di la baalu tey ñaan yàlla sunu borom boolu ñu jéggal ah, di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal Serigne jëm mu Fall ak mboolem njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp noonu leen ni nuyoo bu baax tamit di ziyaare. Serigne Afia bu say maam di ko ñaanal fan gudd ak wér di ziare mboolem jëwriñam yi mu àndal ci liggéey bi yëpp euh, di ziare tamit ki nga xamante ni mooy Serigne Assane Diop mi toog sunu wet di sunu jëwriñ euh, di sunu royuwaay di ko xamante ni pas-pas bun am ci liggéey bi rek euh, ak bëgg gun ci am rek yàlla mi ngi ko jaarale ci loxoom kon ameel nañ ko cant ñu ngi koy sant bu baax te di ko ziare bu baax. te di ko ñaanal fannu gudd ak wér noonu la ñuy du ñu baax yi ñu àndal sëriñ caat Thioune mi doon yëkkate léegi xaside yi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax te di ko ziyaare di ziyaare sëriñ mbay Thiam mi nga xamante ni mooy deuxième vice président daayira mu xaddimatul xidma ah, sëñ Sayer Gaye mii di jànkatu xasida ah, di ziyaare tamit ah, sëriñ Thierno Sène mii nga xamante ni moom moo yor daayira mu xaddimatul xidma fee ca ginnaaw ndox ma moom tamit ñu ngi koy ziyaare baax wante di ziar baax tamit suñ jëwriñ yin bàyyi fële ca Mali buñ ci jiitalee sëriñ maam góor ja euh, di ko ziare bu baax moom tamit di jàmbaar lool borom xam ci liggéey bi di ziar mboolam tamit fédération yi fa nekk ak daayira yi nga xamante ni section yi nga xamante ni ñoo fa yor daayira Muxaddamatul Xidma di fa liggéey euh, ñu ngi leen di ziare baax ñoom sëñ Thierno Fall ñoom sëñ ma buri aj ñu ngi leen di ziare baax sëñ Jili Mbaw mi nga xamante ni tamit euh, moom moo jébbale si woon liggéey bi teg ko ci loxol sëñ Assane ñu ànd ca sëriñ Afia mu tolloon ci téeméeri junni euh, ñi ngi koy ziare baax di ziare mboolem taalibe yi xam naa ni kàddu yi euh, daanaka kàddu yi soññee rek lay doon euh, jëmale ko ci liggéey bi ñu xamaat bu baax a baax tamit liggéey bi li ko waral ak li war a tax tamit ñu bàyyi ci xel gën cee góor góorlu bu baax ndax liggéey jumaay Touba ku ne xam na ni liggéey Serigne Touba la wax na ni Serigne bi. Euh, jumaa ji moo ko naalaloon boppam rëddaloon ko boppam wax nañ ni euh, demande demande demande construction bi jëkk a def sëriñ bi moo ko bindulu moom moo ko jëkk a deflu lin ci laaj ci àddiya tamit sëriñ bi moo ko jëkk a dajale jëkk laaj wax nañ ni sax ci taarix jumaay ji ci jamonoy sëñ bi fondement woon nañ ko ba tàmbali woon ko wante ginnaaw bi sëñ bi euh, demee àjjana wuy ji yàlla suñu borom ci lan dërëdaat jumaa ji yëkkatiwaat ko mu def ca ndigal loo xamante ni tamit ca taawam bu tedd ba sëñ Modou Moustapha ku ne xam na tamit la ko ci tubaab yi teg ci ay gàllankoor ak ay jafe-jafe ngir gàllankoor jumaa ji wante mu xam ne ndigalul sëriñ tubaab moom bu doon bu doon bu bakkanam la sax da ciy des dana ko def ñu waral tey ji ñu dem ba jumaa ji yëg si fii mu yëg si ñun nag sant ñun ci dara teguñu ci dara muy nan fexe ba entretien jumaa ji lépp loo xamante ni jëm na ci liggéey ci setal ci xayal ci jumaa ji ah, ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu def ko loolu yaakaar naa ne yomb na lool ku fekke woon jamono yi eh, bi mag ñi yenu xeer yi di ko indi fii liggéey bu metti boobu tartar yooyu xiif ba mariya lépp pas-pas bi nga xamante ni mag ñi amoon nañ ko ñun ndaw ñi war nañ koo mën a am ci liggéeyal Serigne Touba ci jumaayam ji te ñun kat wax dëgg yàlla neex-neex bi lan tombeel ndax bu lu toll ni liggéey jumaay Touba ñu laaj la ci lan weeru dee ñett loolu yaakaar naa ni yomb na lool te te te te taw féex ga ca nekk buñ ko xamoon yaakaar naa ne buñ ñu ci laajoon un million sax suñ ko mënee danañ ko ci def kon nañ leen ci góorgóorlu rawatina diwaanu Mali wax dëgg yàlla gàcce ngalaama ndax kat euh, pas-pas bi kawe na lool ba bu ñuy réew bu ñuy lim réew yi nga xamante ni. ñoo ëpp pas-pas ci liggéey bu jumaay Touba dañ ci boole Mali kon loolu wax dëgg yàlla ndam la di ndamul sëriñ bi di ndamul taalibe yi li ma ciy dolli tamit mooy jëwriñ yi nga xamante ni ñoom ne nekk ca Mali la ko tàmbalee ci sëriñ Mame Balla Mbacke mi nga xamante ni moo fay sëtub sëriñ Touba ñu koy xoolee sëriñ Touba ah barab bii de barabu maamam la luñ fii def tamit moom lañ koy defal kon nag war naa gën a yokkuwaat pas-pas ndax kilifa nag kenn du ni ko da ngay góorlu wante dan naan ko nag mu yokkaat pas-pas ngir gën a soññ wat taalibe yi ci liggéey mu daayira Muxaddamatul ma la ca topp mooy Serigne Makhtar fay mi nga xamante ni mooy jëwriñu daayira Matlabul Fawzeyni yaakaar naa ni boo yorelee Serigne Touba liggéeyub Serigne Touba yor kër sëñ Touba gis liggéeyub jumaayu Touba te defoo ca la nga ca war a def yaakaar naa ni taalibe yi bu ameem xel wala ñu am sañ-sañ dan naa la la nga war a matal mataloo ko ñun nag dañ suñuy wax duñ ko cof dañuy wax la am ak la xew ci digg bi ndax mënuñu heure bu ñu toogee ci jumaa ji sant leen gërëm leen te wax dëgg yàlla liggéey bi ñu ciy seetaan mënuñu loolu waaw dañuy mën a rek ñu àndandoo di liggéey sëñ Touba ah ñu bàyyi leen ak barke beeg lépp ñun nekk ci coono yi wante nag lan ca war a def nañ ko ciy def ndax heure bu ñu teewee fii dina ni ñi ngi sant Serigne Mame Balla Mbacke ñu ngi sant sëñ Makhtar Faye ak ñi mu àndal wante nag lan war a jëf ci liggéey bi dëgg jëfuñu ko ci kon nan bàyyi xel ci liggéey Serigne Touba yi amul benn liggéey bu ko gën a kawe amul benn liggéey boo xamante nii nag gën naa kawe liggéey bu jumaay Touba ji kon ñu ngi leen ci tàllal loxo bu baax a baax a baax ñu gënaat cee defaat pas-pas gën a cee defaat pasteef liggéey buy dem la nag liggéey la boo xamante ni moom bëri ko ci mbartal la rek waaw ku ci bëgg nag na ci teg sa loxo rek xam ni sëñ Touba moo ko yoral boppam ñi ko yor seen i mbubb oyof na lool wante nag sëñ Tuubaa ngi leen ci defal ndam te nag buñ sañoon ànd kook ñoom ndax ñoom lañ jiital ci suñ kanam ñu yoral ñu liggéey sëñ Tuubaa kër sëñ Tuubaa nag képp ku ko yor bu ne la jumaay sëñ Tuubaa ngi nii yaakaar na ne kër sëñ Tuubaa moom mën da gën a foor jumaay sëñ Tuubaa kon nan bàyyi xel ci loolu bu baax ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa ca fan ko war a liggéeyee loolu day am solo lool Euh, ñi ngi ziyaare bu baax jëwriñ yi di jéggulu ci kàddu yi xam naa bu fekkee ni euh, sëñ Mbay euh, am na kàddu yum ci war a war a sànni walla sëñ jëwriñ waaw bu ko defee waaw xam naa kon sëñ Asan bu ko defee ñu ñu jox jëwriñ moo daal moom daal ñu ngi soññ tamit diwaanu Afrique ñu ngi ci doon waxaat ak sëñ Asan ñun fas yéene tunoo doon coordinateur Mali dong danoo fas yéene doon coordinateur diwaanu Afrique gépp fépp foo xamante ni taalibe Serigne Touba ma nga fa fas yéene neen sunu kàddu yegg fa même bu fa suñ jëmm mënta yegg suñ kàddu yegg fa ngir yaatal daayira Muxaddamatul Xidma ci mboolem kër sëñ tubaa gu fa nekk bu soobee sëñ tubaa danañ ci xool nun koy doxee ñu ba liñ bëgg ci liggéey daayira Muxaddamatul Xidma yaatu te sëñ Assane mii sonn ci lool télé yeeg rajo yi fu nekk lu yendalatul fanaanatul ngir yaatal liggéey daayira muxaddamatul xidma danañ ko fekk ci loolu ni mu def ba Europe daj kapp ci daayira muxaddamatul xidma fas yéene nañ koo def ba Afrique gépp daj kapp ci daayira muxaddamatul xidma yàlla na ci dëppoo ngërëmal Serigne tubaa kon xam naa sëñ caat bisimilah. waaw sëñ Bay xam naa ba mee kàddu yoo ci war a kii rek. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu yéen mbokki jullit yi mbokk taalibi yéen ñëpp di leen ziar yéen ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Cheikh mun Mountakha di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem njabootu kër Serigne Touba gépp ak mboolem Cheikh Serigne Touba yëpp euh, di nuyu Serigne Afia Boussa imaam mi nga xam ne moo nekk ci bërëb bu sell bi bokk ci ñu koy saytu ak mboolem ñu mu liggéey bi ñëpp euh, di nuyu suñ jëwriñ yi ñu toogal Serigne Assane Diop diaspora nuyu nañ la bu baax ziar la ak sëriñ maam baal la ak sëriñ Thierno Ndiaye ak sëriñ Sayer ak sëriñ maam Thiat Thioune ñoo ngi lay nuyu bu baax di leen ziar ah, di sof suñuy kàddu ci kàddu sëriñ maam Balla rek fi mu daanelee. sëriñ Touba bii nga xam ne moom lañ nekk di ko saytu fee féete ca Touba Mali dafa bokk ci liggéey yi nga xam ne yi fi sëriñ bi bàyyiloon loon Moustapha Al Karim ci la bokk ba ñoo ngi sàkku ci taalibe yépp ni ko sëriñ maam waxee léegi ñu gën kaa bàyyi xel. ñun nag liggéey bi fas yéene tuñ rek yamale ko ca fañ nekk dañoo fës yéene fépp foo xam ne war na faa dem ci Afrique bu soobee yàlla bokk nañ ci bu fës yéene ñoo bokk ci sordaal Serigne Touba yi nga xam ne ci ñu ko fay yóbbu boo comme ni ko Serigne Assène eh, te jël ko yóbbu ko fa mu ko war a yóbbu fépp. taalibe bu ne nag bu ko jàppee noonu xam ne da nga cee am eh, part de responsabilité xam ne liggéey Serigne bi fu mu yegg fu ne ca ña ko fa war a yeggalee nga bokk bu sooxee tamit nga xam ne ci ña ko sooxeel nga bokk. bu ko ñëpp jàppee noonu rek nañ bëgg mu doxee ni dana ni doxee te bu soobee yàlla day dox ndax liggéey la boo xam ne ñun taalibe yi bu ñu ko deful sax ay malaayka wala ay jinne dañ wàcc defal ko ko kon nag bu ñu xamee loolu nañ ciy gën a góorgóorlu te gën cee sax te xam ne suñ faju aajo àddina ak alaaxira ci la nekk kon sëriñ maam Balla Mbacke yow mi nga xam ne yow yaay suñu kilifa ca Touba Mali ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar ak sëriñ Matar Faye ma fa nekkal sëriñ bi ak mboolem ñoom àndal liggéey bi ñu ngi leen di soññiwaat ci liggéey bu bu baax a baax baax a a baax di sàkku ci yéen bu ñu jógetee sax ñoo ngi sàkku ci yéen bu ñu jógetee ngeen jóg ànd ak ñun jëmmal ñu ba nga xam ne li ñuy dox amoon na jëmm sax waaye dana gën am jëmm ndax liggéeyub Serigne Touba bi moom foo ko yóbbu rek ne daayira Muxaddamatul Xidma ñoo nekk nii rek loola rek foofu la jëmm yam ndax sëriñ bi liggéeyub jumaa ji dong la fi ba waaw moom la fi ba moom la fi santaane xalifaam yi fi nekk képp ku ci ñëw rek da nga ci feeñal sa yéene kon nag nañ ko xamee noonu te déggee ko noonu ñun daal li sëriñ bi waxoon rek Cheikh Mouhamadou Mountakha ku dem ñu dem ku demul ñu dem ñun daal foofu lañ ne kon nag ñoo ngi leen di woo ñu ànd dem ñoo ngi li daaneel foofu suñuy kàddu di bu baax jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Mame Balla xam naa dañuy rek tëje ko foofu euh, kàddu sëñ Afia ak daayir bi yëpp teg dañ ko teg suñ loxo. ñu tegaat ko ci sa loxo mu sëñ Yaafi xam ne daal ñu ngi jaajëfal mboolem waa Touba Mali yëpp teg ko ci loxol sëñ Maam Balla Mbàkke xam ne jëf yu njëkk ya ak jëf yu mujj yi lépp rafet na yàlla na yàlla gën leen dëbb kàttan eh, fii moom jëfe fi dal na xel ndax sëñ Tuubaa moo wax ne képp ku ci feeñ danga nga feeñ te ci réer dootoo feeñ te it kon na ngeen seede ne feeñ ngeen fi ndax seen jëf sëñtubaa gërëm na ko noonu ngeen soññee itam ci Afrique noonu lañu soññee itam ci Afrique ak Amérique ak Asie fépp fooy ne ci àdduna bi rek ñu xam ne daayira Muxaddamaatul Xidma moom ubbil na la bunt yi tàllal na loxo woo na la ci liggéey Cheikhul Xadim bi kon yàlla nañ ci dajeeg barke waqidi awaay jële si na daamoo fi xidmati wa ablahum maaraamoo inna la si na saarahon li xidmati falahuma diyaar wasal jannati jërë ngeen jëf wal tudxil al musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al wafi